dara di leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko l'info yéen kaay mi desuwaat ci situation réew mi nga xamante ne nii avocat Ousmane Sonko bii di Jean Branco ba léegi si laa la wax bàyyeegul ni ki démb la def conférence de presse yëgal àdduna wërngal këpp di dugal na ab plainte ca cour pénal international ngir mën a jaaba joobe nag état Sénégal gii nga xam ne pour moom fitna gi am Sénégal ci fan yi la ñu luy njig di njaak état bu crime contre l'humanité def nañ ko ci biir Sénégal 4500 de preuve am na ko lépp nag daf ko vérifié document bi yépp toll ci 170 lu toll ak téeméeri fukk ak ñaari nit identifié nañu leen ci ñi nga xam ne bokk nañ ci jëf ju ñaaw ji nga xam ne moo doon xew Sénégal ba ay limuk ndaw ñu bari nag daal ci ñàkk seen bakkan Jean Branco di xam ne ci biir yéene bi na en tout fan yi ñuy génn ñeenti ministre Macky Sall na ne nañu pour tontu ma pour taxal deru Sénégal yëf yi gàcce sax la waroon doon ci yow ndax dèjà dafa am sax cour pénale internationale nu muy doxalee ñeent dong ñoo ko mën a saisir benn mooy gouvernement ñaar mooy conseil de sécurité bu ONU ñetteel bi nag mooy procureur te yow Jean Branco doo ci benn leneen li ma bëgg nga xam nag moo di gi nga coow lu nekk ci biir Sénégal yoonu cour pénale internationale nekku ci les éco yéeni kaay moom dellusiwaat ci réew mi wax ci signalu bu fekkee ne état bu Sénégal dindi na suspension bi yow la cour suprême mi gi la ñu dara nekku ci yéenekaay bi naan en tout cas ki nar am problème dëgg mooy président Macky moom mi xëcc ci troisième am ci fulaak fayda la waaye gor ba mu jénn ko recadré goro président Macky mii fàttali na ko démb xamal ko ne ko amoo droit def troisième candidature gis nga booy organiser dialogue fa mu gënoon jekkee mooy ci biir benn bokk yaakaar wala sax sa biir parti bii di APR ñoom ñoo gën soxla waxtaan fi mu nii pour ñu juboo waxtaan gis suba gi samedi gi lañ fas yéene jébbal conclusion yii président Macky Sall dimanche mu naa di def déclaration waaye yéenekaay bi desewoon na ci seen nopp président Macky suba gi samedi gi lañ fas yéene def cérémonie de clôture bi dimanche moom góoru Marème Faye Sall def déclaration gannaaw ñaari semaines yoo xamante ni lëlu nañu di waxtaanee réew mi rawatina ci suñu ëtt politique gi source aanée en tout cas mu di kaawu Karim Wade sax waaye procédure judiciaire bi amul nu fa compliqué wul yéenekaay bi na xoolal déjà créé yi rek faw ñu réformer ko ñaareel bi moo di il faut ñu defal benn projet de loi wala proposition de loi yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko soo ko jox lépp na président Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi lii dafay yàgg lool ñetteel bi moo di suñu génnee ci loolu président Macky génne ab décret pour ñu mën a appliquer daan yi ñuy yëkkati ci kaw problème ba fu mu njëkk nekk kay ci révision procès Karim Wade bii mooy CREI ci boppam laa la wax moo tas amul benn magistrat bu fa nekk jamono ji xanaa procureur spécial ba ak quelques juges yi nga xam ne ñu ca chambre ba yéenekaay bi def ci révélation bi rëy na gis nga CREI yi dañoo amatul liggéey moo tax kenn jaabanteetu fa kenn dematu fa yenn ci ay juges nañ ci yeneen juridiction ñeneen ñi kenn gisu leen bi di fàttale na ci biir waa ji mu ngi wuyee ci turu Bilal Camara moom daal ab téléphone la yoroon di wax lu ko neex président Macky Sall police ak gendarmerie moom Bilal mi nga xamante ni jeune la amul lu dul ans nekk ab maçon offense au chef de l'État fi nii lañ koy toppee jamono jii may wax ak yéen mu ngi ca loxoy yoon l'observateur moom def taxaw sell ci kaawu Khalifa Sall rawatina ci conclusion dialogue bi nga xamante ni am na lu mu ca gagné am na lu mu xam ne moo di sàcc lañ ko jiiñ de te lii nag taqal na deram dootul dañati abadan même bu fekkee ne mën na bokk ci élection présidentielle bët bi koy sénégalais yi di xoolee mooy dafa luubal alalu Sénégal lii mënta dañ xelu sénégalais yi moo tax yéenekaay bi dañu xamal ne gis nga Khalifa Sall deram moom yàqu na ba noppi mënu du koo seetal leneen lu ñu yéenekaay bi di nettali moo di benn soxna boo xam ne fi mu toll nii ci biir dëkk bi la nekk di wër ñeenti yoo xamante ni dañ ko violé te li ci a bi xam na ñoo ko forcé fekk ko ci kaw lalu séem te dégg moom Abdou Khadre Sounokho di psychologue di xam ne ci biir yéenekaay bi waaw ñu dimbale xale bu jigéen bi li ko may rek fii lay jaaree tàgguk sagum abadan daay nag yàlla baax na ñeen nag jàmm mbokk yi ba ak jàmm incha allah